asalaamaaleykum seen internet yu Dakar di gannaaw ba leen nuyoo di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay kenn ku si nekk di leen ñaanal ñaanal réew mi ñaanal suñu bopp tey doon gisee kii ma toogal kenn di ko présenté si mim réew moom mooy Cheikh borom kaasi te man lu ma jaaxal bu mu nee Cheikh dasee teg kaasi moom moom mooy kii xam ne dañuy matt li nga xam ne mooy kaasi te kaasi kat si kanam ak fay laa ko gisee grand saltige googu suñu nijaay di ko nuyu di ko ziaraat tey gis nañ seex nu mu mel si même réew pour nga jot ko moom sax day jafe ndax euh, moom tout le temps du nekk fi nga xam ne mooy Sénégal ndax dafay voyage voyage yu bëri yi ba mu génnee nag xaloo yàggut keroog ñëw nañ dégg ko suñu micro mu wax li nga xam moom la réew mi demee wax li nga xam ne tamit moom la combat yi demee diggante Modou Lo kii euh, Zos ak ki nga xam ne mooy euh, Ada gis ngeen li nga wax moom la wax si Ousmane Sonko gis ngeen tamit li nga xam moom la wax li nga xam mooy si showbiz bi te bàyyiwul li nga xam mooy eh, équipe nawetaan yi bàyyiwul lenn li nga xam ne lépp moom lépp loo xam ne yàlla may na ko rek képp koo xam ne set si nga ko rek dina ñaanal euh, ñaan bi nga xam ne euh, dina la mës a euh, saafara dañ koy bàyyi mu nuyoo mu wax li nga xam mooy waat ñi nga xam ne ñooy suivre li nga xam mooy Dakar Midi asalaamaaleykum Cheikh. maaleykum salaam. gars yi ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax ñu ngi tuub ñu ngi ziar ñu ngi nuyu kilifa diine yi ñoom ñëpp Serigne Babacar Sy ñoom ñëpp Seyna Limamou Sekoun fa Ndiassane kilifa yi Serigne Touba Mame Serra Fall ñëpp Serigne Saliou ñu ngi nuyu ñëpp kilifa diine yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen ziar bu baax waaw di leen ziar baax ziar ñëpp ziar mbooloom jullit mbooloom juñ leen ziar barki Seyna Limamou laay ma diine laay ma tar waaw gars moom waaw gars yi booy ma seet see moom damay sawar si wax si waaw seet si woon nga bi paase te waxoon na leen bii paase si komba Ada Fass ak Zos bi ma leen waxee après gis gis ngeen affaire bi nag ni mu demee tey nag da ngeen ñëw seet ma pour ma wax si combat Modou Lo ak Ama Baldé tey da ma seet pour ma wax si komba boobu loolu nag dinaa si wax tey sénégalais yëpp loolu dinaa si wax ñëpp dégg ka mu leer ñëpp waaw ñun moom suñu rawaan moom rawaan moom li mu ñu wan rek. loolu la ñuy wax waaw ñëw ñu si affaire bi nag di si di jël affaire bi di si nganda ngandalu waaw di si di si di si gaayu parce que ñun li nekk si li si ñun suñ borom moo ko def suñ borom moo ko def di si dimbali jàmm yàlla yi di si dimbali néew doole yi di si dimbali ñëpp ñi ne États-Unis ñi ne Maroc ñëpp ñu leen di dimbali ñi ne Europe ñëpp Allemagne Angleterre ñëpp ñu ngi leen dimbali match Sénégal moom démb doon naa si liggéey liggéey naa si waaw mooy li doon wax waa ji rek ne match bi après dem penalty mais penalty bi Sadio Mané moo koy dugal mais Sénégal moom si kàttanu yàlla day gagné waaw liggéey naa si nag am nañ si ndam bu baax ñu ngi siy sant yàlla bu baax suñ paree nag instant ñu ngi bëgg a ñëw si Coupe d'Afrique bi te Coupe d'Afrique moom si kàttanu suñ borom moom dinaa am tamit lu ma si wax lu ma wax si réew mi wax si lépp sénégalais ñëpp mu ñu teg seen bët waaw. Cheikh maanaam ñi la xam wala ñi lay ah mais xam nga xam nga xam nga àdduna moom waaw suñu borom moom tey gi bu amee looy def si lu mu def si yow tey yow yoon la nga dimbali si nga dimbali si jaam yàlla yi parce que ñun tey li nekk si ñun ñëw ñu di ka nganda ñëw ñu ne lii lañ doon xëy suba nekkal yi parce que lii ne si ñun suñuy maam la jóge suñu borom nag def am loo xam ne def na ko si ñun mu ñuy dooleel bu baax tey lu ñaan yàlla wala lu ñu wax rek yàlla day def loolu parce que tey gi àdduna moom nit ki lii ne si yow rek loolu ngay def parce que man télé yàgg naa nëbbul ba sonn télé yàgg nañ ma topp média pour ma bañ mais tey xam-xam am na fu muy toll foo xam ne mënoo ko nëbb force foog gars jot si instant yi dafa leer nag foog ma jot gars yi wax wan sénégalais ñu gis parce que coupe d'Afrique baa ngi nii tey instant yi bëgg naa tey gi sénégalais yóbbu ma coupe d'Afrique ma liggéey boobaa ñu xam kan mooy Cheikh football moom dama siy liggéey tout le temps maa ngi si football ba tey rek dama mas démb ba sax amoon naa moom ñu ngi si moom dañ siy liggéey bu baax te xam nañ secret te football lu ñu la si wax du dañ ba si bëri ba si làmba lépp lu ñu la wax du dañ xëy na gars yi ñoom kaas yi rek lañ gis ñoom ñun mañ nañ yeneen secret yoo xam ne loolu kaas. ñu lay seetaan ndax dañoo ne seex na non seex du kaas kaas dañ comprendre rek ñun yàgg nañ yooyu kaas kaas moom yàgg nañ ko yàgg nañ def secret boo xam ne dañ siy yëy kaas te lii lii lu suñ borom dogal la rek lu suñ borom ñu koy def bisimilah yamalla sikoribilako fori lawti tarakko hitabe lakari dari lakar sama yamata jam hadi kitab lowndi jam santa allahu barik lana allahu karim allahu rahmanu ya malikal mulkiya allahu karim ya malikal mulkiya bismillahi bismillahi la ilaha illallah muhammadu rasul bismillah leer na na ko lii de leer na na ko lii de leer na waneen bu mu dollaat bismillah yow mënulaa bi laa mën a wala ci xay xam dara xëy na mu xataxa bismillah loolu sukkoor yi loolu sukkoor yi mu ngi nii ndox maa ngi nii yéen a ngi si teg seen bët sénégalais mu ngi nii yéen a ngi gis ndox maa ngi mu ngi nii mu ngi nii sëñ bi yaa ngi gis waaw te leer na Sénégalais yi léegi mën nañ ñëwaat ci leneen waaw lii moom lu yàlla def suñu borom la lii moom lii moom yàgg nañ ko def quoi lu yàlla def suñu borom la xam nga yàlla moom ay mbiram yaatu na quoi ay mbiram yaatu na te xam-xam moom suñu borom moo koy def mooy ñëw yëkki yëkki def ko si nit muy muy muy kilifa ku mu mën a doon muy ndaw lépp yàlla moom day ñëw fekk dara amu fa mu def fa dara te loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax nganda ngandal ñu si yàlla moo ko def si ñun ñu siy dimbali jàmm yàlla di si dimbali mbooloom jullit ñu ngi ko siy dimbali ñëpp man maay jàppale ñëpp musicien ñëpp maa ngi jàppale mais dafa am loo xam ne nag gis naa ko gis naa ko si Wally Seck hmm. gi am na lu ma gis si Wally Seck xam nga waxoon naa la si affaire am bi dina ko jël. Mhm. affaire am bi mu lii bi passé waxoon naa la ko. waaw mooy door yi ma la wax bi Sénégal Ndiaye ñaanal gi mooy ah, door yi ma la mujj a. door li ma la si waxoon am na. Mhm. mais dafa am lu ma gis lu lëndëm ah. si musicien buy joué si Wally Seck instant bii nii nii nii nii nii ah. instant bii niñ toll nii nii nii daf feebar. feebar bu metti la feebar. te feebar boobu nag nag nag bi bii nii nii pour ñu jóg si. ta gars yi tamit nañ bàyyi néew ñuy jël di ko filmer loolu lu ñaaw la man loolu rafet gis naa lool loolu lu ñaaw la nañ bàyyi ñuy def sénégalais nañ delloo seen xol si yàlla ñu bàyyi néew ñuy jël di ko filmer dem si rob di vidéo gars yi nañ bàyyi loolu mais li ma gis si Wally Seck laax kii di jouer si Wally Seck instant biñ toll dafa feebar te instant bii nii nii nii nii nii instant bii newul Sénégal barki laa ilaha illallah instant yi newul Sénégal te dëkk bi mu ne drapeau bi am na vert am na am na bleu blanc dëkk bi mu ne instant bi ni nii nii nii instant bi newul Sénégal daa feebar léegi nag feebar boobu nag nañ si jóg lu gaaw ay mbokkam buñ si jógul dina demee neneen nañ génne nag bu ñuul bu génnee nag bu ñuul nag bu ñuul buñ ko reyee ñu saraxe ñu saraxe ka si kattanu suñ borom nag si kattan suñ borom yàlla dina ko may tan mais sarax bi nañ fexe ñu génn jëm ka jaayante te feebar bi feebar bi feebar nii nii nii nii feebar boobu def-def la def-def la feebar bi def-def la si Wally Seck nag te am na am na koo xam ne am na ku mu bokkal tam koo xam ne musicien la ñoom ñaar ñoo bokk ndeex baay day way mais du ma tudd turam rawaan nag wan nañ ma ko démb si guddi wan nañ ma ko démb si guddi te instant yàqu-yàqu bi def def yi dafa bari trop te Wally Seck tam na jóg si boppam def def yi bari na trop trop trop trop trop feebar bii moom nañ si jóg. mais tey ñooñu mais tey Cheikh dañuy si wàllum showbiz gis nga gis nga ko Ndeye Ndiaye bànn yaa bàyyi gis ngeen nu mu tëj bàtt démb Ndiaye tëj bi nga xam mooy monument yi nga gis Bass Thioung jugee nga xam mooy Subatel ki nga xam mooy Ibro Naajo jugee na ak réew mi tey gis nañ Ibro Naajo temps yi bi gis moom. Ibro Naajo non moom li may wax si moom mooy Ibro Naajo Ibro Naajo ndaw la Ibro Naajo ndaw la te Ibro dafa am lu jafe Ibro Naajo moom sénégalais ñoo ko bëgg sénégalais ñoo bëgg Ibro Naajo. ñoo ko bëgg te instant bi mu ngi ne si way Ibrahima Naajo mi ngi way te mu ngi am loo xam ne yombul te ndaw la xale yi jox ko bokk réew mi jox ko boppa instant bi moom Naajo lu muy wax wala lu mu war a def da nga xam parce que nit boo doonee ndaw yàlla am lu mu def si réew mi yëpp jox la boppa danga war a mën a xam bu baax fi ngay jaar xam fi ngay teg sa tànk te na na na def attention nag na def attention bu baax am na lu am na lu jàll fa ni la si ginnaaw mais def attention mu bàyyi bu baax ne instant bi nag sénégalais ñëpp bëgg nañ ko te moom xolam dafa rafet naajo damay gis muy def ay social naajo ku ne lay dimbali man loolu teg naa si bët ku ne lay dimbali nit ku ne day ñëw si man ne naajoo naajo ko defal li naajo ko defal lii li mu bëgg nag moom moo ko am yàlla ko yàlla jàppale te fi mu teg tànkam moom fi mu teg tànkam si lu baax bu mu ko mës a dindi moom instant bi moom moom moom instant bi moom mu ngi fi instant bi moom naajo mu ngi fi quoi instant yi moom Sénégal ñoo ko jox boppam te te nit moom boo doonee ndaw yàlla dimbal ngay way li nga am nga koy partagé di ko di si dimbal moom lu ne dinga am instant lu ne dinga non showbiz moom instant yi moom showbiz moom instant bi showbiz bi waaw yaaxante bi bari na coow li bari na gars ñoom Ndeye Ndiaye Banaya newoon na fële jóge si waali ñëw fii dem fii problème yi nag bari na dëkk bi temps lépp ay problème problème yooyu amoon na fi gars yi nañ boole rek nañ boole xoli rek ñoom ñëpp benn la nañ boole xoli te gars yi instant ñoom ñëpp dañu war a joxe référence parce que dañu war a joxe référence tey nii ñoom lu ñu am artistes yi lu ñu am nit moo leen may lu am tey moo leen ko may tey dañu war a mën a joxe bon exemple ñoom ñëpp ñu bo joxe bon exemple xoolu rafet ñu xool ci réew mii Ousmane Sonko mii gars yi jàpp tekkalox yëpp nañ ci xool bu baax. xanaa ñëw yow li nga xam mooy Ousmane Sonko jamono jii dégg ngeen lu bëri lu mu li nga xam ne mooy ki nga xam ne euh, euh, xam mooy justice so gannaaw mu ngi àttee ne Ousmane Sonko mun na bokk te bu ko waxee yàgg na. waaw non Ousmane Sonko mën na bokk Sonko mën na bokk mën na bokk. gis naa lool bi ma waxee loolu yàgg na mën na bokk tey saa du yàgg tuuti sax moom du yàgg tuuti sax gis naa sañu ñu bàyyi ko gis naa gis naa moom ñu bàyyi mu dem gàlleem ñëwaat gis naa loolu non Sonko moom mën na bokk moom mën na bokk man gis naa lool bu baax gis naa loolu bu baax mais réew mi nag na si dama dafa am lu ma gis fan yi doo am na lu ma gis lu garaaw doo gisati dama gis ni dama gis coolu waram fan yi du yàgg si genre élection coolu waram fan yi du yàgg coow lu war a am lu yàgg coow lu war a am gis naa ko fan yi ah, kilifa benn ah benn kilifa bu war a wàcce genn ah. kilifa gu war a génne àdduna gis naa ko du yàgg du yàgg gis naa kilifa gu war a génne àdduna gis naa loolu du yàgg kilifa gu war a génne àdduna gis naa ko fan yii nii du yàgg maa la wax loolu yow lu ma la mas a wax du dañ lu ma la mas a wax nga teg si bët te Ama Baldé Modou Lo làmba jooju noonu ah. dinaa wax mais làmb yooyu la ji moom la cinq si kattan suñ borom làmb ji day am ji moom day am moom mais li ma rawaan bi won wa rawaan bi li ma won ah. li ma won ma gis ka si làmb ji xool ah. li ma gis ah. doomi Fallaye Balde jooju mooy daan muy Ama Balde loolu laa gis man dama man dama ragal faar man ragaluma loolu de barki Seydina ma mën sëñ Seex borom kiraama yi ah. kii téye kaas yi di ko lekk di ko yëy gars yi di ko gis nii ah. ragaluma loolu parce que sëñ Bamba moo ne bismillah yëmmal luwaay bilaa manaay walanti xaay xam dal di rabbi xeeru rabbi xadaral ma xal bi bi lax ti daay ah. man ragaluma loolu man sëñ Seex maa loolu borom kiraama yi borom kaas yi ragaluma loolu lamba jooju li ma gis hmm. doomi fàllaay balde jooju amaa balde mooy daan dañuy dañuy seetaan li nga xam mooy Dakar midi jox dégg ngeen Cheikh lu mu wax tracé yu mu wax nee na ki nga xam mooy amaa Balde doomu Fallaye Balde bi mooy daan ki nga xam mooy Modou Lo dégg naa ay wax ay sëriñ yu génn yu bëri yu génn ñu ne na amaa bale def ndànk Cheikh ñëw dëggal ko ne Ama Balde mooy daan Cheikh moom fan la ko teg. non man fi ma ko teg mooy li ma rawaan bi woon. dama tëdd ba si guddi rawaan bi li ma si combat Ada Fass Ada Fass Zos ma ne la Ada Fass mooy daan rawaan bi moon loolu la ma woon dama woon ne ma Ama Baldé mooy daan mën nag li ma rawaan bi woon rek loolu laay wax yow xam nga ne man faruma ken te lamba ji ñoom lamba ji maa ngi dégg gars yi ñu ne man da ngay liggéeyal Ama Baldé ñoom ñëpp ñu ngi ñëw di ko wax man gars yi moom ñu ne man da ngay liggéeyal Ama Baldé ñoom ñëpp ñu ngi ñëw si man di wax di wax man lamba mais làmb ji comme que jug nañ si naan mooy Ama Baldé te gis nañ coow lu si bëri lu si lu mooy Ama Baldé Modou coow lu bëri maanaam ñu ne Modou Lô kii nga xam euh, a daanaka ki nga xam mooy Ama Baldé pour euh, Boy Niang mën a bëri mën a bëri combat royal. non combat làmb ji moom si kàttanu yàlla moom làmb ji day am dañ dañ koy bëri moom Modou moom du bëri kenn balaa muy bëri làmbaji Ama Baldé lay bëree pare doo ko bëree kenn man maa la wax lii man seex borom kiraamay borom kaasi maa la ko wax te dama gis deret yu bari si làmba ji mais gis naa si ay sacrifice ay nag ay sacrifice nag wu ñuul ay sacrifice yu garaaw gis naa ko si làmba ji ay sacrifice làmba jooj du yomba de. ñu war a dem estat wala te gis naa si ay accident. maa la wax loolu de gis naa si deret. barki Seydina Limam gis naa si làmbaj deret ju bari deret ju bari xam nga toog nañ fan yële ma ne la am na koy àndax Balla Gaye ku ku yi di wër day takka jabar muy assis Ndiaye waxoon naa la ko fan yële xam nga wala ñu ñëw balaa bëggoon a ñëw gis nañ ne coow bëri Aziz Ndiaye ay saraso Miss Ndiaye tey gis nga ki nga xam ne mooy Miss Ndiaye génn na kër na seen tey looy wax si affaire boobu non affaire boobu moom gars yi si wax moom bari na mais moom na muñ parce que moom yàlla moo ko dogal yàlla mooy dogal ne di wax diw dañuy sëy loolu moom na muñ te gars yi nag sénégalais nañ bàyyi di wax si sëyu jàmbur quoi dem nañ ba tuwaawoon war a wax si war a wax si gàmmu gi di wax ay sëy média yi ñoom ñëpp di si wax gars yi nañ bàyyi lool nañ bàyyi di wax lool di wax si ay sëyu jàmbur ñun gàmm bu ñu gàmm yóbboo gàmm moo ñu yóbbu quoi te Aziz Ndiaye moom toog nañ fan yële maaye moo la ma ne la Aziz Ndiaye day takk xale bii di théâtre toog nañ ma la nga ne ma sëñ bi loo wax te sëy boobu noonu sëy boobu noonu gis naa sax gis si doom ji war a judd doom si kanam nii du yàgg te am na am na am na benn artiste boo xam ne artiste kuy rap instant bi nii jabaram instant bi fi ñu toll nii instant yi mu ngi mu ngi ne instant yi en na ku siy bi jabaram mu ngi ne en état fan yële waxoon naa la kii di rab te mu am taxawaay te mu ne si dib jabaram dina am doom waxoon naa la ko fan yële waxoon naa la ko fan yële uh-huh. instant bii ne am na si koo xam ne jabaram instant mu ngi en état mu ngi en état uh-huh. waaw instant bii nii nii nii instant bi ñu toll nii am na si benn rabkat boo xam ne instant na def attention trop na def attention sarax bi na ko génne muy muy muy king baaba na génne sarax bi dafa am lu ma gis si moom sarax bi na ko génne xaru benn melo bi naka génne mu rey ka saraxe ka naka génne sinon bu génnoon sarax bi rek jàmm du si moom. non wax lu coow li bari na trop coow li ñoom bari na trop mais sénégalais nañ si def attention nañ si def attention bu baax nañ si def attention ñooñu problème amul seen diggante maa la ko tey sénégalais lañuy ñuy dofloo rek. problème amul seen diggante sénégalais lañuy ñuy dofloo man maa la wax lii tey. barki Seydina Limaamu sénégalais la ñuy dof la benn problème amul seen diggante man maa la lii man Cheikh sénégalais nan yow ñu bi seen bët ñu xool ñu xalaat te ñu gis ñu bàyyi nelaw bi. Eh, eh, waaw mais dañuy ñëwaat un peu tout li nga xam ne mooy làmb ndax làmb ji mooy actualité jamono ji gis nañ nga ñamal làmba jooju moom Ama Baldé kële na tudd Ama Sène ak Tapha Tine ak Siteu ak Lac de Guiers noonu moom moom moom am naa lu ma si gis mais su ma paree nag am naa lu ma si gis bu baax su ma paree si combat Modou Lo bii boo ma boo ñëwee seet sawaat ma dinaa la wax si làmba jooju kii la wax si làmba jooju kii di daan làmba jooju moom dinaa la si wax ñoom ñaar kii di daan wax la kii di daan sa ngemba gi muy ngemb. yéen a ngi déggandoo nga xam euh, euh, nga xam mooy ki nga xam mooy euh, Lac de mais tey day ñëw li xam ne ñu waxtaan gannaaw bu ñu gis nañ mel ne Macky Sall amul wala jiital xam nga Macky Sall moom bu tegee Amadou Ba rek. Macky Sall xëy na am na lu mu gis am na lu mu yaakaar si Amadou Ba ba yëkki Amadou Ba def ko favori Macky moom mooy tànn mais moom Amadou Ba la tànn Macky Sall li tax mu tànn Amadou Ba am na lu tax mu tànn Amadou Ba waaw am na lu tax mu tànn te moom gis na loolu te instant yi moom gis na instant yi pour sénégalais jox boppa pour Amadou Ba falu te élection yi bi fi mu nekk nii nii nii nii. non élection day am. élection day de. élection moom day te kii di falu instant yi falu kooku du kii di falu fi yi du doon du doon waa Dakar de ah. kii président ah. du doon waa Dakar si àll bi lay jóge te kii di falu président bii nii ku am tur lay doon man maa la wax loolu kii di falu président nii nii nii ku am tur lay doon mais du doon waa Dakar moom waa Dakar moom du falu président man maa la ko wax tey xam ne moom moo wax gis ngeen parole yi nga yëkkati gis ngeen li nga xam ne moo wax si leen gis ngeen ay kàddu yi nga xam ne moom nga yëkkati mooy Cheikh ak bi nga xam ne ci ginnaaw jàmm waaw Cheikh gis ngeen li nga xam ne am na kooku li nga xam ne mooy ci nawetaan yi te gis nañ léegi temps yi daa une deux trois nawetaan dañuy yàq li nga xam ne mooy euh, euh, sati te loolu si yoon non gars yi c'est que nawetaan gars yi nañ boole nañ boole xol yi rek ñu doon benn quoi ñu doon benn man amoon naa si nañ yi ñuy yàq parce ñëpp ñëw ñëpp ñëpp signé ñëpp doon ay pro yaa ngi comprendre kon nañ bàyyi stade yi ñuy yàq parce que nawetaan foo arree la rek may woo téléphone instant maa doon liggéey si match bi nañ boole xol ñu doon benn yoof seenam yoof la quoi nañ boole xool ñu doon benn ñu bàyyi stade ñu yàq parce que bi ñu ko yàqee ñoom seen stade la waa Yoff seen stade si mel ni Ablaye Diouf Sarr stade bi liggéey na ko lu ne def na ko si Diouf Sarr koy sant di ko gërëm Ablaye Diouf Sarr li ma doon def lépp na ko ku baax la noonu la bàyyi ay social lépp lay def taxaw na fii Yoff defal na leen social Sénégal gépp Ablaye Diouf Sarr defal na leen social kon gars bu ñu yàq stade bi baa ngi waa Yoff avancé jot lu net lu ne dañ nañ ko lu ne dañ nañ ko bu ñu ko yàqee seen stade lañu yàq gars yi nag nan bàyyi la ñuy def quoi affaire foiré la rek kii yàlla dogal yaay jël nawetaan yaa koy jël foiré la te tey suñuy gone fi suñuy mag ñëpp ñaan nañ yàlla tey tekki si football kon gars yi nañ joxe cër ñu joxe bon exemple ñu bàyyi ñuy def ni amul sens amul solo policiers yi sonn nañ sonn nañ chaque jour dañuy ne fi di atte gars yi di atte gars yi ba sonn nañ dimbali tak takk dere ñu bàyyi la ñuy def nii quoi man li ma gis démb dafa li ma gis barki démb dafa ñaaw barki Seydina Limam

dinaa génnat parce que temps yi waaw xam nga dama duggoon temps yi dama duggoon xalwa waaw loo tax xalwa laa newoon nag moo tax waaw te man moom li may génn sax bariwul li may génn bariwul te gars yi moom nañ client yi nañ ma comprendre rek Europe États-Unis yëpp nañ ma comprendre parce que ñu jot ma rek loolu problème la loolu du si man. man ma woo ne ma Cheikh mun ñu ko woo jot mais la yan numéro ngay joxe. non bu fekkee man sama numéro moom 78 la moo ne si beneen émission bi 78 136. 23 71 boobu moom mooy suma numéro waaw ku si dugal nag yow mën na si dugal sa numéro yow mu dugal sa numéro waaw bu ngeen lee si émission bi ñu ko porté rek man ku ma jotul lek mën na la jot waaw am na suma benn numéro kooku sama bëkk néeg la quoi ku ma jotul tam man na ko jot numéro boobu noonu waaw mooy numéro boobu noonu mooy mooy numéro bële mooy 77 waaw 042 25 042 99 25 waaw 042 vingt 25 waaw ku ma bëgg a mën na ma jot tam si numéro boobu. Kaaman nañ ma nañ rek day fekk instant may nekk si liggéey moo tax su ma beneen journaliste day mer rek yow sax da mer da naan ñu bëri dañ lay woo si sëñ bi jot ka problème la waaw nañ ma comprendre rek. ba si passeport yëpp yëpp dañ si liggéey mooy passeport yi moo nekk dañ siy job moo ne nii dañ siy job dañ siy liggéey moo nekk nii dañ siy liggéeyal gars parce que sànq bi nga ñëwee yaa ngi ma fekk maam ay xaatim yi ma doon bind. xaatim yi nag yi mooy xaatimi jaaru bi moo nekk nii jaaru waaw xaatimi jaaru bi moo nekk nii moo ne nii mooy xaatimi jaaru yi parce que turi nga siy dugal boo si dugal turi kaaw maa ne si la leen liggéeyal day tijji sa bunt wër sëg lépp lay def kenn du man si yow dara da nga ne Europe gars yi duñ la wër waaw bii nag mooy bii mooy xaatimu làmmañ ak cat waaw ba si wàllu soxna wàllu jigéen bii mooy ne xaatim moo nekk noonu waaw làmmañ ak cet bii nag mooy xaatimu xaatimu xaatimu boole moo nekk nii xaatimu boole moo nekk nii xaatim bi mooy xaatimu dëddaale moo nekk nii mais fii ngay dugal turi quoi turi fi mooy xale yu jigéen yi ak góor yi xam nga ñoom ay relation rek moo leen yitteel bi waaw ko ne mën na ko def sëy wala nga def sa jabar yooyu fii ngay dugal tur yi bi moo nekk nii mooy xaatimu dëddaale moo nekk nii bi moom boo ko boolee tur ak tur si kattan suñ borom lépp yàlla dina def lii gën mooy xaatim bii waaw yeneen nag mooy jaar yi ñuy takka waaw ñun moom waaw chaque jour ñu ngi si daal mais li ñuy client yi nañ ma comprendre rek nañ comprendre sëñ bi rek parce que sëñ bi moom ñii ko soxlaa ñoo bari nañ ma comprendre rek waaw buñ ma jotul rek dinañ la mën a jot. waaw li may tàggatoo rek mooy dëkk bi Sénégal dëkk bi am jàmm jàmm la ñuy woote rek dëkk bi am jàmm ñu xool si yeneen dëkk yeneen dëkk yaa ngi di daanu i immeuble di daanu lu si ne ay Turquie fépp amoon na sax Maroc waa morok mbokk yi maa leen maa leen di ñaan. waa Maroc maa ngi ñaan li am Maroc fan yi metti na mais ñu ngi ñaan lii gën yàlla def liy gën chaque jour ñu ngi ñaan mais Sénégal moom jàmm am na fi jàmm am na fi gars nañ booloo xooli rek ba élection yi nag jotee kii yàlla def kooku mooy falu président ñu def na yàlla kii moo fi tegu waaw te yi nag nañ wàññi quoi nañ wàññi gars yi ñu wàññi bu baax lañuy ñuy def moom waaw nañ ñaan yàlla rek dëkk bi am jàmm jàmm mbooloo mooy doole suñu équipe nationale bi ñëw war a jouer coupe d'Afrique nag ñu ngi ñaan nag yàlla may ka ndam te Coupe d'Afrique bi moom moom moom moom dinaa la si wax lu leer waaw Coupe bi li ma si gis moom dinañ sori moom dinañ avancer après nag dinaa la wax kii di jël final bi si kattan suñ borom. a ah, cheikh internet yu Dakar Midi gannaaw ba ngeen gisee ki nga xam mooy a gis ngeen ko kadd yu mu yëkkati ak kaddu yu mu yëkkati li nga xam mooy si sow bi bi ak nga xam ne moom la yëkkati li nga xam ne mooy si réew mi ni ak kaddu yi nga xam ne moom la wax ki nga xam mooy Ousmane Sonko ak kaddu yi nga xam ne moom la wax ki nga xam ne mooy eh, eh. Alla Ndiaye moo dëkk yoof day jaay madda nga jàppale waale ko rek mooy kiloon au démb pour nga defal ko pipe nga defal ko publicité mooy jaay madda ñii ne États-Unis ñii ne Allemagne yëpp Alla Ndiaye moo nekk Yoff sama madd man waaw non maddam sa madda na la ko indil Alaaj Njaay mooy jaay madda mooy ki la oon démb na nga defal ko tit waaw ku baax la quoi te ku nangoo liggéey ndaw lu nangoo liggéey Alaaj moo dëkk Yoff madda yu neex lay jaay mooy jaay ñi États-Unis Allemagne ñëpp ah, gis ngeen ko a ah, El Hadj Ndiaye borom yi maa ngi la koy eh, ziar di la jox sa wàcc waaye borom madd yi ne moom sa réew borom TikTok. mu ngi laaj gars yi moom sa réew dafa xawoon a jàpp instant dafa voyagé woon états nee mu ngi ziar gars yi moom sa réew gars yi aimé ka aimé lien am waaw instant États-Unis la dem nag moo tax nee na bëggoon na ñëw si émission bi tey loolu tax ñëwul moom sa waaw gis ngeen ko kaddu yi mu yëkkati euh, euh, ndax li ñu joxoon si waxtu jeex na ak ki nga xam mooy Cheikh borom kaas yi nee naa kaas yi moom si euh, ki nga xam mooy sunu maam sunu papa si Karamax fa Karamax Faye laa ko doon gisee da grand saltige boobu noonu laa doon gis muy yëy li nga xam ne mooy verre tey Cheikh ñoo defaat ko di xale mu ndaw di jeune mën li muy def. xam am xam-xam lool yàlla may ko lool ku mu gisal su ne ne lool la ne lool la su mu lu gisal su la ñaanalee da nga xam ne kii kat ngand la mun na lu muy def te gis nañ ko ñaanal na fi ay mag. ñi ne États-Unis ñi ne États-Unis ñi ne États-Unis ñi ne Europe ñooñu maa ngi doon seetal maa ngi doon seetal seet gi maa ngi koy defee vingt cinq mille mais ñii ne fii Sénégal am na ñu may seetale quinze mille am ñu may seetale dix mille maa ngi ni jàppal parce que yow yaa waxaa man ne ma client yi ne fii Sénégal wàññil leen nga defal leen dix mille parce que yow sa jëmm yaa tax may def loolu yow yaa tax may def moo tax ñi ma mujjee seetal fan yi dix mille laa leen defal mais fekkee ñu ne Europe moom du ma ko wàññi cinq mille laa def dégg ngeen ah kàddu yi wax lool man fa laa ñëw ndax kii ku gis kii xam ne Cheikh ah, borom xam-xam la yàlla may na ndax affaire da ko doon ñi nga xam moom si ay maamam tey gis nga ay équipe nawetaan yu muy ñaanal te ñuy day ñaanal ñi nga xam ne mooy artistes yi day ñaanal ñi nga xam ne mooy politiciens yi day ñaanal li nga xam ne mooy mbëri dégg ngeen Ama Baldé Modou Lo lu mu si wax nee na ah, ki nga xam ne mooy ah, Ama Baldé mooy daan ki nga xam ne mooy Modou Lo Tapha Tine ah, ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène dégg ngeen kaddu yu mu si yëkkati ki nga xam ne mooy Siteu tamit ak ki nga xam ne la Lac de Guiers dégg ngeen tamit kaddu yi nga xam moom la yëkkati waaw Mbengue waa ay seen Mbengue ñoom ñëpp waaw ay seen Mbengue ñoom ñëpp waaw mën nañ muñ waaw ASC yëpp mooy ASC yu nekk daal yi nga xam mooy Ngor Woof ah, Ngor Woof Wakam yooyu ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di ngeen ki nga xam mooy Cheikh di leen jox dig daje nag ah, ndax xam naa yàggatul dara ndax instant dafa war a dugaat xelwa ndax lu muy toogaat Sénégal lu muy toogaat Sénégal bëriwut ndax moom pour nga xam si moom sax ndax gars yi dañ may woo sax ni ma ci ci ci sa sëriñ bi ma ngi koy woo son mën na ko fexe ba jot ndax lu si bëri nag day dugg li nga xam mooy xelwa di leen jox dig daje ba fan yi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf